Bienvenue sur Salam Vision. La ilaha illallah. La ilaha illallah. may ni leer ba mu feeñ ci bite. jam-jam bu déggoo day ànd ak wóolu maam fa aboori jaal ba. La ilaha illallah. asalaamaaleykum Sénégal mbokk àdduna asalaamaaleykum mbokk ndaanaanu Sénégal yi euh, tey dikkaat nañ tey ji Pikine tali bu mag fi nga xamante ni mooy école 6 bu ne école 6 mooy am na nag ndaanaan bu fi ñëpp di coow di ko laam laame tey nag ñu jug di seeti ay ndaanaan ne ko nag balaa ñoo jugaat di jëliwaat beneen ndaanaan te nga gën a nekk ndaanaan nag ci kaw ndaanaan nag dañuy ñëw jaar sa place mais dañ koo bett mu nekk ndaanaan boo xamante ni kenn dàq ko suma ma nee nii rek xam ngeen siso bi bu ngeen gisee li mu sol ngeen xam ne ndaanaan moo toog fi ñu nekk tey mooy place bi nga xamante ni mooy ki gën a dàq ñëw ci biir Pikine ku ñëpp tey ji di lam-laame tey ci biir Pikine dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa ñuy ñëw nag ci beneen tur boo xamante ni nag mooy tur bi nga xam ne moom la ko ñëpp xamee mais dañ koy bàyyi mu nuyoo ba pare sama nijaay maa ngi lay siyaar bu baax a baax. waa DG maa ngi lay bëggee lu bari di la siyaaree wet vraiment di rafetlu émission bi ngeen ñëw def si. Mhm. di kontaan ci yéen lool lool lool lool. waaw di ziar waa Sénégal nag wax te wati ne àdduna waaw di nuyu sama clients yi na ci diaspora bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal fii ñëpp maa leen di nuyu di leen wax ni bienvenue c'est l'Islam Couture macha allah. tey jii foofu lañ doon bëgg a jëm si tuuti tey jii ci Islam Couture balaa ñoo gën a xusi waxtaan bi lu waral baatu Islam Couture. waaw Islam Couture bi moom mën nañ ne héritage la quoi parce que suñ papa yi ñoom euh, yoroon nañ atelier doon ñaw. te tur boobu lañ ko tuddee woon vraiment biñ koy def ñoom it amul kilifa gu leen seet wut amul kilifa gu leen liggéey loo te xam naa ne tamit barke mi ngi ci parce que day tur boo xam ne tur bu sell la tur bu yiw la tey ñun dañoo bokk foo xam ne fu yiw lañ bokk bokk fu sell dëgg yàlla yar ñu yar bu am solo nag moo tax tamit loolu noonu moom euh, ñu hérité ko ci parents yi daal waa tur bi moom ci parents yi lañ ko jëlee macha allah suñuy grand tamit ñoomit vraiment ñi ñu jàngal ñëw ñu ngi ñu ngi extérieur ñoom vraiment tur boobu lañ yoroon kon ñu ne duñ def lu dul topp seen ginnaaw rek comme ñooñu ñooy kilifa yi macha allah. tey jii euh, ci foofu nga tudd léegi mooy ci biir kilifa yi ñaw ñëpp a la ci lamlaamee ñaw loo dond la wala jàng wala gëstu la. waaw ñaw nag dama ko donn jàng ko gëstu ko macha allah dama ci tarbiyu daal waaw parce que ja bi may juddu fekk naa samay parent di ñaw samay mag di ñaw. ma bàyyi loolu yëpp fekk am na lu ñu ma jox ba pare wax dëgg yàlla mais lañ ma jox dama dem utiwaat leneen dolli ci waaw dama dem utiwaat leneen dolli ci waaw. amul mhm, deful pour mën ñaw. macha allah. tey jii euh, ci biir ci biir euh, secret boobu nga xamante ni maanaam tey jii kilifa tey jii def nañ ko ci yow nga tarbiyu ko dem jàngi ko te yàlla yàlla dogal tey jii euh, nga yor tey sa biir place tey fii nga xam ne mooy di Pikine. te li mag tey Pikine bëri ay téere fi nekk. mais téere fi nekk yëpp pour ñu dégg leen problème lañ parce que li tax mo wax loolu mooy islam couture xale yi di ko coow mag ñi di ko coow maire yi di ko coow dirankee di ko coow ci mën ñaw bi la wala ci lan la wala dafa am secret boo xam ne moo làngoo ak place bi. xëy na barke waajur yi la rek barke waajur yi la parce que waajur yi ñoom dañ leen a tarbiyu ci ñaw euh, li ñu doon digal yëpp wax dëgg yàlla ñu koy def respecté suñuy njaatige respecté suñuy kilifa. wax dëgg yàlla tey jii rek am naa ñëw boo xam ne maa ngi ko doon ñëw sama waajur laa ko doon ñawal te xam naa ne loolu may def noonu fayu ma ko damay jéem rek waaw loolu yëpp boo gisee ñu koy def maanaam bëgg barke kese la bëgg barke kese parce que gis naa ñoo xam ne ñoo mag fop jiitu ma ci métier mi fop waaye man biir naa ne li ma suñu borom defal ci métier mi maa ngi sant yàlla bu baax te xam naa ne day wéy waaw parce que suñuy waajur dañ leen tarbiyu sonn ci ñoom wax dëgg yàlla te taxul nag ñu dab leen nag taxul dab leen ba léegi waaye daal lépp loo xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa Euh, jàngal ñu métier mi tey jii xamal ñu ci lu bari ñoom wax dëgg yàlla mënuñ lu dul di jéem rek waaw loolu ñu jéem nag xëy na suñu borom moom lay wane nit ñi di ko gis waaye du suñ njàmbaar du suñu mën a ñëw tamit wax dëgg yàlla ndimbalu suñu borom képp la waaw. waaye nag tamit ndimbalu suñu borom tamit day fekk tamit mën gën tamit nekk ca parce que tey li mu nekk li mu doon tey ji mën-mën moo waral tey àdduna yëpp tey ji di la coow tey foo tourné tey ñu ne Islam Couture tey ji Pikine ci biir Pikine donte ñi fi nekk bari nañ donte ñi fi nekk ñëpp a ngi leen di coow mais defe naa Pikine képp ku jug ne boo jaarul fi nga war a jaar muy Islam Couture bu la ñaw loolu day mel ne la nga ñaw nekkul ñaw maanaam ci dondu ñaw gi ci biir jàng ñaw bi loolu buñ ci génnee coow lee bari lool mais tey jii mën li ma bëgg a laaj mooy ci benn secret bu ndaw laa bëgg am fu mu jëm ak yow maanaam sa diggante ak dund ak ñaw amour bi lu jiitu la wara luñ la ci waaw wara luñ la ci dugal la quoi ci biir xam lépp loo gis tamit dafa am secret. <laughs> loolu moom moo jiitu moom parce que métier passion la daal ñaw ñi ci bari ñi ciy dugg moo leen ciy dugal parce que métier am ñaw maanaam ku ne xam na ne métier am jinne la mook art a ak artistes yi ni ñuy mel ni ñu nag ñoom ñoo bokk lépp waaw amuñ différence ñun nit ñi dañuy wut si ñu baax ñi dañuy wut si ñu bon ñi dañuy wut si jinne yi sax dañuy wut si moo tax métier jinne la waaw moo tax daal bu la yàlla dimbalee nga am passion bi nekk ci wax dëgg yàlla ba pare gëm ko lépp loo ci bëgg rek yàlla mun na la si defal parce que da xool exemple bu mel ni waa Wally Seck exemple la ci jeune sénégalais yëpp bi muy ñëw fii di jouer ñu bari dañ ko doon ree et pourtant tey il est le chanteur le plus célèbre loolu yëpp gëm ko moo ko ko may kon ñun métier bi day métier moo xam ne métier muñ gëm la te métier muñ gëm ne war nañ cee mën àgg fu ne ñun bët jéggi na fii waaw métier muñ gëm ne war nañ cee mën a àgg fu ànd nañu ak ñi nga xam ne tey jii nii ànd bokk nañ passion bokk nañ gëm-gëm am naa yaakaar ne sax maanaam fii moom du du du métier mi du fii métier mi war nañ ko yóbbu fu ne niveau international waaw parce que loolu yëpp gëm-gëm la ñun gëm-gëm boobu am nañ ko te gëm nañ ni yàlla dong moo koy joxe te dinañ ko am te gisuñ leen loo xam ne war nañoo mën a tere ñu àgg fañ bëgg àgg incha allah. mais tey jii ñun tey jii ñun ñun tey jii ci waa international yi lañ déggee sa tur ci international yi ci lañ xamee l'islam parce que ñun doon nañ loo xamante ni bu ñu demee ba gëstu la rek maanaam ñun buñ jógee rek jublu ci yow rek dafa am loo dañ ko gësu ci yow ba xam ko ci yow ñu fi nekk bari nañ mais jàpp naa ni boo doonul woon daanaan tey ji ñun duñ la ràññee te boo doonul woon daanaan tey ñu ñun tey duñ la seet si mais tey ji ci biir yi ñaw génération bu bees bi maanaam ñu bari léegi seen jàng métier dañ koy yàkkamti maanaam dañuy jàng métier tuuti xam nga am luñ ci jot a xam tuuti jékki-jékki beru dem def ji embossement wala def ji leneen te ku la xool tey nga nekk xale bu gëm sa bopp tey ji ñëpp tey ji di la coow parce que am nga foo jaar am nga loo gëstu donte métti na benn fan muñ nga ko tey bàyyi ji jël la teg la tey ji fi nga war a tegu tey ba jël ay xale tey ji di leen teete maanaam jàng métier bi nga xam ne xale yi dañ nga daan jàng métier bu njëkk ba ak léegi différence bi parce que léegi ñu bari léegi donte dañuy mën tuuti ñaw rek dem te seen xam-xam day desee des lu bari loolu ci yàkkamti la waral ci lan la. waaw loolu xañ na peut-être ñoom xam nga Sénégal day doxe ñoo xam ne euh, dafa xaw a métti man nag du ma blâmer ñi ñiy jékki-jékki bàyyi seen métier dem defi leneen wala ñu bàyyi seen métier dem ber seen bopp parce que xañ na situation moo leen koy defloo waaye man dans tous les moom métier moom dañ koy tarbi ba mën ko ba am ci barke. parce que man sama waajur bi ma jur wallaahi laa lay wax ba ni patron di génne àdduna avant muy génne àdduna chaque année. daana jël ay suukar xam nga ak ay ravitaillement jëm jox ko njaatigeem gis nga loolu noonu moo ko topp ba ci ay doomam wallahi laa lay wax man sama mag yi dul ay tailleur sax buñ toogee si machine dañuy ñëw barke boobu moo leen topp dara neexal njaatigeem te xam naa ne loolu noonu tey jii moo ko topp ba tey jii nii waaw dañ naan loo doonul taalibeem nag doo doon sëriñam waaw man nag wax dëgg yàlla sama waajur ba fi may toll nii lu ma mën a am di ko ko defal dinaa ko defal su ma ko amee parce que lii ma nekk nii tey moom la ak sama mag sama mag fan yi passé rek wallahi laa lay wax gis naa kuy dem war dem Italie fan yi passé ma jël ñaw ñoo ko mu baax yónnee ko ko barke alxuraan vocal yaa ngi si sama téléphone may ñaanal kon loolu tawféex la te maa ngi sant yàlla te xam naa ne su ma nar a dimbali ci loolu la may dimbalee su fekkee tarbu sa mooy tax nga xam nga am nga am barka ci liggéey wallahi ma yaay ñëpp dëgg yàlla dama doon tarbiyu waaw te gëm naa ne loolu moom mooy may li may am mais du leneen ci ci léeg nga xaw a am emprunté yoo xamante ni léeg ñu jékki-jékki def effort yoo xam ne yow da leen leen sax yow effort yoo ñuy def sax yow ba nga doon jàng métier yow yow da nga koo ragal a def tey ji jamono ji booy tey ji koo ci doon yónni tey exemple fii fii ak buntu Pikine exemple mu ngi yàkkamti xaar fukki dërëm boo ko jox paas wala cent franc boo ko jox paas te bu njëkk ba dama daan gis da nga daan gis ko xam ne da doon jàng métier mais buy jàng métier dañ ko doon doxloo diggante fii ak parcelle jox ko bolo añ na ko dama nga jëli añ donte patron am sax dafa am loo xam ne da ko doon jël di ko tàggat tamit ci moom tey ji dund goog nga xamante ni tey ji nit daan na si jaar métier est-ce que yow sa jëm bopp yow jaar nga ci lu mel noonu wallaahi jaar naa ci jaar naa ci man dama daan dem di jëli añ sama bopp bi boo xoolee ni mu leelee nii jëli añ moo ko leel wallaahi dama daan yenu bool bu diis dem jëli añ yenn saa yi da ngay dem paas sax duñ la ko jox da ngay dox distance bu sori dem jëli añ waaw loolu yëpp ci tarbiyu la bokkoon parce que dañ naan àdduna mënoo am dara mu yomb loo am mu yomb rek xamal ne doo ko amee doo ko téye parce que barina fi ñoo xam ne tey jii nii beru nañ dem ibbi seen place ñaari fan ñu dañ ko tëj dem liggéey embauchement ñu téye leen si place ñu at benn machine bu baax sax ko am loolu nag li koy waral mooy ñàkk barke man loolu moom laa doon sàkku bi ma ñëwee fii tàllul ma loxo kenn amul sama mag bu ma sa taxaw nag ne ma machine bi maa la ko jëndal wala lee maa la ko jox amul man yaakaaruma mag yaakaaruma kenn yàlla képp laa yaakaar te xam naa ne fi may toll suñu borom moo ma fay tollale mais du ay ay ay ay yaakaar kenn waaw ku ma ci fekk na da nga ma fekk ku ci ne fa may fekk da ngaa ñëw fekk ma ca mais yaakaaruma kenn te xam naa ne loolu yëpp maanaam euh, ndimbalu suñu boroom la du man ndimbalu suñu borom la maa ngi koy sant yàlla bu baax nag li nga gëm la te nekku ne lépp loo xamante ni moom nga gëm loolu rek ngay def ndaanaan la ci biir ndaanaan yi loolu la yàlla dogal ñi si des dañuy nangu li nga xamante ni moom la yàlla dogal ndongoloo nag dafa am baat bu mu waxoon da ne loo jàngul doo ko tari yi sundul ña waxat ko da koo jàng da tari ngir bëgg koo taataanal ngir bëgg koo jox ñi nga xamante ni ñoom lay seqal liggéey tey ji ñi nga xam ne tey ji dañuy nekk extérieur tey ji bëgg a jàkkoonteeg yow ngir bëgg nga leen di ñawal ñoom bu ñëwee tey ak waa ak tàngoor gi ñu àndal yow lan ngay def loo xamante ni boo ñëwee automatiquement ñoom dinañ dal xam nga te coow du am parce que lu ci bari xam nga day xaw a day xaw a jaxasoo ak say client waaw dëgg la dëgg la mais client buur la client buur la ak lu mu metti metti rek client lu mu tàng tàng tàng bu ñëwee neexal ko waxtaan ak moom dalal ko jéem a dalal xelam am na client yoo xam ne bu ñëwee bu ñu yoree seen xaalis sax réew lañ lay jaay waaye yow sa jëmm nga wan leen ak yar ak ak taalibe ñun ci loolu la ñuy yar client nu mu mën a mel ak doomu aadama bu mën a nekk nu mu mën a mel rek lu indi rek bu ñëwee ànd ak taalibe wan ko yar moom bu la walee ne leen moom moom moo ko mel waaye yow na mel bu la dara changé ñun ci loolu la ñuy yar yar ak taalibe te duñ dépassé doomu adama waaw loolu nag dëgg yàlla ndimbalu suñu boroom la waaw parce que client yi koo xam ne du xam sax perturbation parce que da ngay liggéey yenn saa yi perturbation day am yenn saa yi nga liggéey coupure courant ñëw wala sa machine panne xam nga sa programme yi nga programmé woon yëpp mën na mën na tardé te loolu noonu wax dëgg yàlla am na ci client yoo xam ne euh, duñ ko comprendre léegi nag yow da am dimbali yàlla rek xam nga nga am ñu client yoo xam ne moom wala neexalee ñoom dinañ xam li nga bëgg te man yàlla dimbali na ma sax man ñëw jàmb du ma ko tardé man damay respecté sama liggéey su ma client bi ñëwam jaralee ma toog fi ba quatre heures du toog ma ñëwal waaw parce que li ma xasante wax waxante ak nit ki lu métti métti métti dinaa ko jéem ba def ko yombul nag mais dinaa jéem ba def ko te client mosuma fekk fii ne ma sama tissu ko jaay wala yaa dama la sama ñaw nga def xaalis lekk ñawaloo ma musta am bi ma nekkee Dakar ba léegi mosuma gis client bu ñëw fi taxaw fi wax ma ko loolu nag sant yàlla quoi waaw yaakaar naa ni fi nga jaar jaara waral loolu xëy na fa fan la tàggatee tamit moo waral loolu parce que yaakaar naa ni ku ne tamit la ngay def tamit boo ci ànd gëm-gëm ànd ceeg doolu gëm naa ni yàlla sa mboram mën na laa teg loxo fi képp ku ñu fi diw rek du baatu ni dafa diw de xëy na nag sa jëfinu diw ga moo waral loolu nag ñu ne kat baatu diw la kon nag day ndaanaan parce que ñun bu jógee rek ndaanaan a tax ñu jug tey ji euh, li des si kàddu daanaka temps bi presque jeex na li des bëreetul ñu bëri ñu ngi commentaire suuf nee ñaw bi nga sol nii nii nii ñaw bi nga sol secret ñaw bi ah, waaw ñaw bi daal la di coow man sax na nag ngeen a yóbbu ñaw bi nag xëy na nag man mi ko seet si tey nag wax dëgg fa yàlla ñaw bi nag war naa ko mën a yóbbu mais tey ji mais mais mais mais yëfi ndaanaa nii nii gis ne ay Wally Seck ay ñoom Youssou Ndour dañuy sol ay ñaw yu mel nii mm. tey ji ñu ñëw solo tamit nga daanaanu tamit comme ñoom waaw mais secret ñaw bi parce que lii dafa mel ni fii waaw lii moom 217 la 217 waaw ñun ko doon ñaw mm-hmm. macha allah di euh, def lu rafet nag wax dëgg yàlla dañ ciy def ay modèles yu yéeme te xam naa ne ku ñam ci loxo bi moom yow yaa ñuy wax rafet na mais ñun duñ la laaj sax ndax rafet na yow ñu koy waxal sa bopp yaa ñëw ba fii nañu li nga ñu ñëwal léegi laa léegi rek am na ñaar ñu fi mujj ñooñu foog naa xuma kañ laa leen gëj a gis tabaski laa leen gëj a gis maa ngi leen doog a doog a gis moment boobu noonu ñu ñëw fi ma jaax leen yére jaay leen ko ñu sol yére bi yàlla xam na ni euh, gars yi ku ne di leen coow ma ne leen nag wax dëgg yàlla ndimbalu suñu borom la rek waaye du suñu njàmbaarte ñun munuñ dara yàlla képp mën mais l' essentiel daal ñu ngi ci jàngum ñëw ba léegi mënaguñ ñëw dafa am dafa am koo xam ne sama directeur muy Modou ñàkk nag commentaire yi moom dina si jóg parce que dafa am loo xamante ne couleur la tam suñu diggante ak ñoom dama bëgg nag ngir di seet ci Macky Sall nga solal ko lu rafet lii nga sol laa bëgg incha allah ñu ñu ko Modou Diagne Fada incha allah incha am naa ñoo xam ne ñu ngi bokk ci gouvernement ñu ngi bokk ci ñu tuddee di euh, ci ci ci mairie bu Kaolack mm-hmm. ay responsable ku ci mel ni baay ja responsable la Kaolack ku mel ni président Moussa Fall ku ne xam na ko apporter di rek euh, maître El Hadj Diouf sol man maa ko ñaw ñooñu ay kilifa lañ tey wax dëgg yàlla euh, dama leen di ay ñëw yu rafet te ba ma jàppante ñoom ba léegi ku ci gis ñu sol ñaw rek da leen koy laaj waaw di nuyu nag sama waa panel Kaolack suñu yite di ñoo xam ne ñooy wax dëgg yàlla am naa ci ñoo xam ne ñu ngi ci biir ay responsable lañ luñ sol maa leen koy ñëwal loolu nag sant yàlla waaw yàlla am na gars yu bari daal dëgg yàlla maa ngi leen di solal fii ma nekk nii waaw ñu mel ni ñoom waaju baax xam nga artistes ñu bari dama leen di solal Bakaña Bakaña musicien te mu nekk gox bi si sam te mu dëkk benn vidéo nag incha allah rabbi nag dañuy ñëw incha allah nga solal incha allah loolu du benn problème man moom artistes yi moom yàlla di mu boole na ma ak ñoom te wax dëgg yàlla say nit moom danañ ma gën a jàpp baax a baax a baax waaw ñi ma ci solal ñëpp sant yàlla quoi Poté Marichou tàmm nga nag lu ma def nag nga ne da da nga weccoog man bi pa da ma koy may sol naa fi veste nga ne da ngay sol veste ñuy wax nga dem tourné ko loolu du ma la ci wax dara waa Marodi man nag da may fay waaye li ci des nag mooy pot tàmm nga nag fu ma jaar nga jaar fa nag bi pa moon ak moo koy may lii incha allah rek man maay ki la koy njëkk sol ñu bàyyi la tamit dernier kàddu yi incha waaw di sant yàlla rek di sant sama éléments yi ma nekkal fi wax dëgg yàlla ñu bokk di liggéey wax dëgg yàlla xale yi nangoo liggéey yu respecté liggéey lañ amul kenn ku ci toog ba ba wàcc sa heure wàcc jot euh, nga wàcc te tàgguwoo ma dëgg yàlla ku ciy wàcc di ma tàggu ku ci nekk bala maa xëy si naa fekk ñëpp xëy si wax dëgg yàlla ñu respecté seen liggéey lañ ñu ma respecté lañ tamit kenn mësuma jee jàll baat kenn mësuma cee dépassé waaw sant yàlla vraiment di leen nuyu ñoom ñëpp ku ci mel ni maam Modou mu nga xam ne mooy njiitu place bi man moo fi nekk di nuyu euh, Pape Gueye ak euh, Amina mii nga xam ne mi ngi ci daara ji ak euh, xale yi fi nekk yëpp daal wax dëgg yàlla mënumaa lim soo limee day gudd waaye maa ngi leen di sant di xam ne liggéey bi ñoom la man du man waaw lii bu rafetee rek ñoom la man moom du ma ci lenn. waaw sant yàlla. alhamdulilah euh, donte sax euh, bu rafetee sax yow doo ci lenn waaye xëy na bu dee astuut rek xëy na xam-xam jële wuñ ko woon ci mbedd jële nañ ko ci yow indi nañ ko ba nga jël ko taatal leen ko jox leen ko bañ ko mën a dëkkaat tamit ngir ñeneen man cee jëfin ay bu téer amul woon ci àdduna bi ay ndaanaane bu ñu amul woon ci réew mi waaye nag kenn du islam ko tiir de man de bis ni ko tey gars yi nangu nañ ma waaw gis nga mu lislaam ku daal a ngi noonu ku ci bëgg a solu daal bëgg a sàjji lu baax ñëwal daara a ngi nii yëfi ndaaraan yaa ngi nii ku ci ñëw daal dañ la ci solal te foo dem moom bu dee da ngay ragal coow moom eh, na nga sangu ba tooy doog a dem léegi dama laa ko wax moom léegi daal la pot ngir yàlla war a leen fi indi loon nii euh, daanaka ndaanaan du ko wane euh, du ko def te duñ fa jaar wane ko ñu nag dañ koy jaajëfal donta nag jafe na ci réew mi waaye dama ko loqati na ko far force nag incha allahu rabi da koy gis dama koo bett nag bi may ñëw xam nga nag ndaanaan moom boo ko bettee tam mu mel ni xuma nag soo ko bettul woon nag ko tey ji ni mu mel ni waaye nag cooli cooli du foofu xam nga fan la ci biir la ak fan Salam Vision ndaanaan bu mag bi di nuyu samiir du nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk du nuyu tamit waa Kiki TV ndaxte Kiki TV mooy Salam Vision Salam Vision mooy Kiki TV kon on est ensemble ñun ñëpp ndaanaan la rek ci biir ndaanaan yi saa bu njugatee rek indi leen ci ndaanaan One Love leen joxaat dig ba beneen ndaanaan incha allahu rabbi prochaine fois la ilaha illallah bala doole faal fan jafe ni bala la faal yërmande keroog doole faal fan jafe ni bala la ñaan ayumi Mbàkke yaay Falilu ni ma la la ñaan yërmande ayumi Mbàkke yaay Falilu fu sa ne xam nga ko